Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 24 juillet ginnaaw bi nga dit ne di directeur RCS, dafa xëy démb ci Twitter dans des di posté benn post post dans nag daal di semé polémique ginnaaw ñu bëri ñu ngi daan naan est-ce que problème avec le nouveau régime bi nga xamante la doon défendre du temps de l'opposition ñu fal ko fa ci biir loolu nag dafa ne dafa jot di président de la République ak premier ministre ñi jàkkaarloog sénégalais yi wax leen dëgg lu waral nag mu jëkkati que boobu mu wax ko moom rek moo xam ndax bu mu nekkee opposition moo leen doon défendre tey su ñëwee ba nekk ci pouvoir bi mu ne leen wax dëgg donc dafa mel ni am na loo xamante ni du woon dëgg démb tey dëgg jooju la bëgg ñu wax ko kii nag di Bamba nekk foofu chroniqueur ci Sen TV wax na ci xalaatam def ci analyse am nañuy déglu ci xalaatu Bamba ci poste bi nga xamante ni directeur def na ko jëmale ko ci président ak premier ministre pour que ñu wax sénégalais yi dëgg nañ déglu ji Bamba dellu si waat man nag euh, yàlla dafa def ñoom seen biir euh, ñi ndax ñi ngi déggante wala ñu ngi jokkoo seen biir man loolu sama yoon nekk man dama siy maandu parce ñoom seen biir ni ñuy waxtaanee seen biir man loolu intéressé ma mais li ma intéressé mooy li ñu bokk si réew mi dañ koy waxtaanee. et Pape Alé Niang dama lire li nga xamante ne mooy euh, publication bi mais benn phrase bi ma si intéressé mooy dafa ne l'unique solution est de dire la vérité au peuple ah Pape Alé moom mi ngi doo rendre compte que léegi lañu war a wax dëgg gi mu ngi daan doon rendre compte que solution bi mooy ñu waxante dëgg. <laughs> waaw moom jamono ba muy nekk Dakar matin kon si lan la nekkoon. jamono ba muy def ay live am di wax ak ñi nga xamantene moy internet yi ci lan la nekkon kon mo mi ngi doon comprendre que solution bi moy ñu waxan deug deug bob mo ñu fi bayiwon ñun ñi fi ci plateau deug bob mo ñu fi bayiwon deug bob mo taxon ñun ak ñom mu ñewon deggante kon mom jamono yoy mu nekk ci Dakar matin ci lan la nekkon kon jamono mu doon wax mom si lan la doon wax si lan la teewon ba xam ci deug la teewon wala ci naxé mbay la teewon ñim doon waxtanal fan la leen emporté fan la leen yóbbu ba ñoom seeni gëm-gëm ba moom li muy wax fan la yóbbu yenn sénégalais yi ba ñu jàppalee ne loo xamante ne tey lay doon rendre compte que il faut que ñu waxante dëgg moom yëgul woon ne moom nekkul woon si dëgg tey lay doon rendre compte ñun xamoon nañ ne bu yàgg que moom xamoon na ne moom nekkul si dëgg waaye nag comme dafa wax nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg parce que charité bien ordonnée commence par soi mooy nañu waxante ñoom nan la ñuy jàppante ba tey ñu nekk fañ nekk régime bi fi nekk en place tey muy euh, li nga xamante mooy Dio Bassirou Diomaye fay ak euh, Ousmane Sonko ak ñi ñu àndal président Lamine Gueye li mu wax sànq dafa nekk régime boo xamante ne réseaux sociaux di da see bëri loolu mu joué. dama japp ne internet beeg réseaux sociaux yi bombe à retardement la si régime bi fi nek mais ñom néna na ñu réguler ko. Pape Alé lui-même euh, DG de la RTS. Mhm. wax na ko ci li nga xamante mom mo jëm ci euh, bi lancer travaux yi ñeel euh, assises yi. waaw ma comme mom moom comme mom tay lay do publier né l'unique solution est de la vérité mom na na na na nekk ñun bañu waxanté ba diggante moy li nga xamante moy réseaux sociaux yi maam ku muy bay bayal. Les lay si réseaux sociaux lay parce que kilifa bu mag dafa mos a wax ne internet bi netul réseaux sociaux yooyu ñu wax ñaata sénégalais lañ doon topp di wax di leen envoyé ay publication ay vidéo ay message ay information yoo xamante ne dañ koy dagg duñu you ci pandaw ga la profondeur de cette publication duñu la profondeur de cette vidéo duñu xam la profondeur la véracité de cette publication mu emporte Sénégal yu ci li nga manipulation ñaata Sénégalais lañ ko defal te pourtant vidéo ñu souvent dañ koy séquence image si réseaux sociaux nit ñoo di défendre li nga Sonko ak passer pour nous au pouvoir tey Pape Alé Niang toog ba tey ne l'unique solution est de dire la vérité kon si loolu nekkoon jamono yooyu léegi nag wax ji mooy te réseaux sociaux yooyu ñuy wax bi fi Sénégal nekkee Lamine Gueye président Lamine Gueye 1960 ba léegi ban nguur euh, Abdou Nguer moo fi falu di wax si réseaux sociaux yi ngay dégg ministre wax ne kenn mënu maa vaar moom ban mi ban nguur nga déggee ministre di wax ne na riir si réseaux sociaux yi na riir a riir waaw ma ne ban nguur nga ko déggee nguur googu noonu parce que dafa am lu mu def lu bëree bëri si réseaux sociaux réseaux yooyu nag ñoom ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñoom ñoo commencé def compte attaque loolu nañ ko lijjanti ñoom seen biir loolu mën na am si kanam mais li ma bëgg a wax mooy mooy Fatima waxante dëgg sénégalais moo tax tey ñu bëree bëri suñu ñëw déggoo tey moo andi li nga xamante ne mooy cette division sociale parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo dañoo dañoo parparloo ba ñoom dañoo jàpp ne man ak yow mënuñoo déggoo parce que yow suma leader nga bañ dafa ñoo xam ne dañoo jàpp ne man ak yow mënuñoo déggoo parce que yow fi ma far fa nga compte mooy wax ne man li ma engagé man Bamba man moom xaw ma keneen man chaque jour li ma mosoon a engagé mooy dëgg rek moo a ñoom man bu fekkee dafa am benn parti bu ñu war a faral nañ ma yóbbu parti de la vérité parce que man dëgg laay wër. man du ma la vérité léegi nag dëgg boobu nag. pour ma wax la mooy tey am na ñoo xamante ne tey dañoo bëggoon parce que vidéo yi ñu dagg image yi leen jox moom moo leen emporté bañ dem tey ba nekk dans le fanatisme ba bëgg ba am doon seen sago mais est-ce que ubbi woon gi seen i bët wax leen li nga xamante ne moom moo xew mooy dëgg gi am na tey ñoo xamante ne ay chroniqueurs toogoon si plateau yi dañ doon défendre li nga xamante ne mooy benn parti pourtant ñoom même ñoom bu ñu xamee li si biir duñ ko wax parce que kër li nga xamante ne mooy wàllum post yi ñu fal leen fen li ma bëgg wax mooy tey jii nag la dëgg gi di feeñee parce que tey di nga xam li mën a nekk. ak li mënul nekk. te am na ñoo xamante ne ma la ko. Mhm. si biir ndaw ñooñu réseaux sociaux yooyu. Mhm. ñu bëree bëri bëri ñi ngi doon liggéey liggéey bu am solo si réseaux leen nominé ma ne sànq wax naa ko sànq benn talib sow lu tax ñu fal ko si nag leer na nañ am na nag li nga xamante mooy si JPS bi mooy jeunesse patriote du Sénégal. mécontentement bu bëri li Abdou di wax ñu bëri ñuma xam ñoo xamanteni ñi ngi. kon ñoo déggandoo analyse bi nga xamanteni Bamba le grand chroniqueur de la Sen TV def na ko ci émission Grande Gueule jëmele ko ci directeur RTS ci poste bi nga xamanteni moko daldi poste ci li nga xamanteni moy compte Twitter ndax moom directeur RTS mi ngi déggoog premier ministre am yoonam nekku ci ndax directeur RTS mi ngi déggoog président de la république yoonam nekku ci moom yoonam ci lu mu nekk. maanaam mooy poste bu mu bind te benn moomoo ko ci ëppal importance mooy dafa jot président Diomaye fay ak premier ministre am wax sénégalais yi dëgg su dee bëgg nañu yàgg ci pouvoir bi kan moo bind loolu mooy ki nga xamante ni moo nekkoon porte parole parti bi nekk tey au pouvoir du temps de l'opposition ci benn site bi nga xamante ni moom la doon defee ay live am matin midi soir lu leen neex mu waxal leen lu ñu def mu ne gongo lu leen neex mu ne moo baax lu leen neexul mu ne loolu moo bon kooku moo leen doon défendre tey ba ñu egsi au pouvoir ba mu jaral ko mu tëdd ci kaso ñaari yoon kooku tey su dellu dellusee ñu jox ko part du gâteau dénk ko lii di RTS am mu jàkkaarloog askanu Sénégal li ñu bëggoon am nañ ko mu ne président yow ak sa premier ministre wax leen sénégalais yi dëgg donc foofu lañ fay jam baaraamu tuuma. lu tax mu ne na Séné euh, président ak premier ministre wax sénégalais yi kon ça veut dire que mom démb lamu mu doon wax ci réseaux sociaux yi lamu mu won ndaw yi bañuy ñuy génn di xeex lamu mu won ndaw yi bañuy ñuy génn di dé lamu mu won ndaw yi bañuy ñuy génn di taal kon lolu du won dëgg mom moo ñu ko war expliquer on a besoin de savoir ñun nak deug bu muy wax tay nako président ak premier ministre mu wax sénégalais ñun ci deug jooju lañu nekkon nekkoon nekk ci bërki démb te ci moom la ñu nekk tey ndax tey dafa bëgg a ñëw fekk suñu suñu dëgg jooju en tout cas li am solo ba am solo mooy dëgg rek kay mujj dama doon dégg olof Njaay di naan lu yàgg dëgg la sama maam ne ma wax bu yàqu la ma ne ko lu tax mu ne ma firaawu na yàggoon na fi loolu te du dëgg ma ne ko muy gonga ma ne ko dëgg rek kay dëgg ndaxte la ci gannaaw dëgg yëpp pëndax meew la te pëndax meew saa yoo ko sayalee ñu naan ko fàtte ko kon yaakaar naa ni lañ doon doon wax démb Mon directeur RCS am le droit d'explication au peuple sénégalais amna le droit d'explication face à ces jeunesse qui sont tués

ñoom bokk nañ ci mais nag su dee dafa jot ñu wax dëgg nañu taxaw ak sénégalais yi wax leen dëgg mais balaa leen di wax dëgg dañ leen xamal ni que ñin lañ leen doon wax démb yëpp dara du ci dëgg dañ leen doon nax pour egsi au pouvoir tey nag egsi nañu au pouvoir fekk nañu réalité du pouvoir ak fenn yi ñu leen doon wax bokkul pour ñu ànd liggéey nag foog ñu sënku ci dëgg ji su boobaa loolu la ñuy xaar ci ñoom ñun dëgg ba ne woon démb bërki démb ci la ñu nekk kon yaakaar mooy li may même su dee bën bënu puso la fen di montagne montagne boo xamante ni ay jallu jàll la bés bu dëgg feeñee montagne bi day effondré wu te yaakaar naa ni montagne fen bu fi ne woon démb du temps de l' opposition de deux mille vingt et un ba mars deux mille vingt tey benn pëndu dëgg. feeñ na te mi ngi effondré li nga xamante ne maanaam mooy montagne fen boobu dem na ba ci seen ay ñoon ñoom ñooy taxaw di naan vous nous avez trahi muy marchand ambulant di Jakarta di ay jeunes di ay étudiants ñi doon xaar appel à la candidature ñu doon bëggul woon gis nomination népotisme ay famille ci benn ministère ñoom ñëpp gis nañu fen bi mi ngi commencé effondré te ñoom ñooy taxaw ci réseaux sociaux yi. Olof Ndiaye nag dafa am lu mu wax moom mi si boppam dafa taxawoon ne ñu réglementer réseaux sociaux yi te démb. ñom réseaux sociaux mo leen indi au pouvoir mom ci réseaux sociaux la doon waxé ci Facebook la doon waxé ci TikTok la doon waxé ci Instagram la doon waxé kon yaakaar naa ni ñom ci seen bop lañu bokk ñu manipuler sénégalais ba ci réseaux sociaux ni ko bi waxé celui qui règne par les armes périra par les armes tay nak man dama leen di wax lan celui qui règne par des mensonges périra par la vérité képp koo xamante ne da nga falu ci ay fen jàppal ni bés bu dëgg ñëwee da ngay daal di daanu te dëgg bi dafa commencé ñëw te ragal nañu tey dëgg jooju daaneel leen tey ñoom suñu xoolee ni kat si réseaux sociaux la ñuy jaar di manipuler di fen ba tey ñu egsi au pouvoir su ñu gisee ñeneen utiliser réseaux sociaux yi di teg dëgg bi ñoom dañuy ragal réseaux sociaux boobu parce que dañu naan lii ñu fal nii ñun fii lañ jaar ba falu kon ñii suñu toppee réseaux yi ñun foog ñu daanu loolu moo waral mbir mi mais li am solo ba am solo mooy dëgg rek koy mujj te Sénégal dëgg moo fiy jib te dëgg moo fiy mujj ku nekk mën nga làmboo say fen waaye bés boo eggee ci réalité pouvoir bi lépp fen boo xamante ne lawal nga ko dëgg dafay ñëw daal di koy yëkkati teg ko suuf muy pertinente analyse bi nga xamante ne la Bamba le grand chroniqueur de Sen TV def na ko jëmale ko ci post bi nga xamante ne directeur RTS def na ko jaglal ko président de la République ak premier somme pour ko ñu wax sénégalais yi dëgg je crois que nag dafa jot ñu waxante <laughs>